فران الجميل لمن نافع أراني الملك ورافع ساق مكاري لمن قبلنا مدرتي من ليقود منا ملك للملك والملك والمالك الذي له تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان وجزاء أجر الذي ما عنده لا يتفدوه وصلى لي وما اخترى كلمة قال العالمين أحمدا أريت تسليما كريم أمدا فرات القلب ونفسي طيبت وبمكائل خير سعبت يسر قال العالمين قلمي أريت تسليما مسر العالمين للمصطفى وجهت مالي قادا نفا بلا مدرتي من قادا هو الشفيع وهو السجاه بما سلمي والأوجاه محمد صلى عليه الله في الهار وصحبه وموالاه ما بلاي وما ومع أمراضي وبرضا تنخاد لأغراري نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسمى حبيب ربيا قتلوا يتي في العلني وسر وولي قاد ولني رفعت قلمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أراد تبديلا رفعت قلمتي إلى الماء سند ولسوانا ساق كل من فلت هو النبي ورسول والقليل وهو ربيب ويكسر الخليل تليم باقي الله يزال سندا على النبي ورسول أمدا أبقى سلام الكريم السمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلام الكريم السمدي يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إليه جود يقتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولجعلت فدر فوق سومي جئت بذا الخزين ساكرا لك بي وقل لي قط فضلك سنت قصيدتي سكورا ولم تزل يا مالك زكورا أكرمتني إكراما ما شاء فعل وكل ما أردت منك انفعل آتيتني يا رب من لدنك شكرا حكيما فرديت عنك باركت لي يا ربي في غروفي وقيرها وجدت بالمعروف ملكت لي بكونك الكريم ما قال لي والتكريما والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى ما مدى من الدر موت الظلما كذا لي ما المال كفلات بمال غير ساق كل من جات أكرمني بقل اللهوات ربي ولم يكن له كفلات لا جاني الله المكرم سمت تلاجا بي كفاني الكمت وجعل الأكرم أنفع الكرم والدرري بخير رد من شرم أسألوا كونتي القصيدة خارقة لعادة مريدة يا يا قيوم سل بسلام على الذي جاء بأطل كلام على الذي جاء بأطل كلام صل وسلم والتقبل سل كلام من على قارش الحروف بما يفوق ظل للمعروف من وروف يقلد قلد ذهبها من وروف قلد ربها يا من كف هوس القرور ومباح ولي يا رحمن يا ريم يا أيوة يا قيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا ريم يا أيوة يا قيوم يا مكرم يا لا جاك عبدك القديم مساسلا مسلما على مصاصي الخلا ناجاك عبدك الخديم مسلسلا مسلما على مسلسل الخلاب سبحان ربك رب العزة عما يسود وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سرين bi لينيو sëriñ Xaasim moom Cheikh Mahamadul Mourtada ñi ngi lay nuyu ci turu sëriñ bi sëriñ Masamba Bousso di sëriñ bàcc mu Cheikh Mouhamadou Xari Bousso ak ci turu ay rakkam yi fi nekk di sëriñ Omar ak sëriñ Jiili mu sëriñ Xari ak sëriñ Jiili mu sëriñ Abdul Aziz ak sëriñ Mouhamadul Baax yi ak mboolem seeni rakk ak njaboot gi fi nekk di sunuy yaay ak sunuy mag ak mboolem taalibe yi fi nekk yépp di nuyu it kilifa yi nga xam ne ñoom nga àndal ak taalibe yi nga àndal yépp di sëriñ bi nee na mi ngi fedd li mbégteem di ko dolli mbégte moo xam ne yeesut fenn ci xol bu sedd guy ci xel mu dal gu matale ci jëf ji nga xam ne at mu jot nga def ko ngir matal kóllëre ngir um ma euh, wuutalewu la ak jëmmi Cheikh Mamadou Mourtada mi daa ñëw fii kon su fekkee ne xam nga li nga xamne ne bolé won serigne mohamoudou Khari ak Cheikh Mahmoudul murtada muy bokk gi ak talibé gi té ñom talibé gi gënal leen ndax seen lepp dañ ko jaayoon ngir serigne bi mo xam juddu baak xam-xam baak lepp serigne Touba rek ñoroon kon ñew gi ngi fi ñew ngir jëm Cheikh Mahmoudul Khari serigne bi nee kawé na ci ñom lool sori na ci ñom lool ndax amuñ nak lu serigne sëriñ Mouhamadou Khary Bousso mi nga xamne ne len boole ak serigne bi kon mbir la mo xamne ne serigne Massamba fati gep ñoo bege waye waaye serigne sëriñ Bousso bi gep ñoo bege ak talibé yépp kon nee na mi ngi la ci sante bu baakha baakha ba di la ci gëreem bu baax ndax dëgg la am na kóllëre gu tax nga koy mottali ngir loola sa mbiri bopp la ngir sa digg ak ki nga xam ne boole woon na leen borom boole woon na leen ci jaare gum jaare ci Cheikh Amadou Mourtada ci sababam loo xam ne jële nga ko fi muy njariñ ci wàllu xam-xam loola sedd sa xol ba tax ngay matale kóllëre ngir loolu waaye loolu bari nañu ñu jaaroon fii ci bokk yi bari nañu jaaroon fii ci njabootuk sëriñ bi waaye nii nga koy defee yow dong nag yaa koy defee loolu it nag lu ñu yëg la lu ñu xam la lu ñu bàyyi xel la it bu doon toon loolu it fii sëriñ bi boroom kër gi waa kër sëriñ bi ku ne ñëw na fi njabootuk sëriñ biit ku ne ñëw na fi waaye képp ku fi ñëw rek duñ la wuutale ak sa waajur duñ la wutale ak sëriñ bi sëriñ bii di sëriñ bàcc noonu la nekke noonu la mel kon nee na loolu kawe na ci ñoom njort lool ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm di la ci ñaanal yow it nga ñaan ci barkeb sa waajur wa ak barkeb sa maam sëriñ Touba mi nga xam ne moo waral lépp moo taxit ñu teg la fu ñu la teg nga ñaanal leen sunu borom yàggal leen fi nga yàgg fee ñëw yàgg leen fee fekk ak képp koo xam ne teew nga ci jataay bi nga ñaan sunu borom faj aajoom bi barakati xaadim rasul gannaaw loolu it sëriñ bi nee na bis bi nga xam ne sëriñ xaasim mi ngi ko fi ñëw ak mu jot mi ngi ci soññu mi ngi ñu ci soññ ñun njaboot gi moo xam rakk yi ak doom yi ak sët yi ak taalibe yi ci ñu xam ne bis bu mu fonk la nañ jàpp bis bi muy bisu màggal su dellusee nañ ko jàpp kon loola kon dañoo war a xam ne ak cër la te ñoom ñoo fi nekk ñoom la ñuy xoolee sëriñ bi kon sëriñ bi nee na mi ngi soññ njaboot gi di soññi taalibe yépp it ñu bàyyi xel bis bi ba bu ñëwatee ñu gën fee teew gën koo fonk bu baax a baax ndax bis buñ safo la buñ fonk la ngir yi ci daje yépp kon sëriñ bi kaddu yi munta wessu kaddu yi sant ak tatagal la ci sa kër ak sakku ci yow ñaan nga ñaanal leen ñoom ñi di suñu kilifa wër ak yagg fi su ko defee ñoom ñu delloo la ñaan gi nga yagg fee ñëw ba su ñaanal ñu ñun taalibe yi suñu borom defal ñu wér ak wërsëg ak yàgg ba lépp lu ñu ñu man ko matal te and ko ak suñu kilifa xamna kon kaddu yi moo doonoon yi nga xam des na ko ngir teeru la teral la tatagal la ci turu sëriñ bi su amé kaddu yim ci motali inshallah allah ñu jox ko mu motali ko waye ñun dañ ko doon ubbil rek rabbi asrah li sadri wa yassir li amri hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرين قاسم باك مينجلين دنيو nuyu ba gën a mat bi gën a sell ah di rafetlu jataay bi muy jataay boo xamante ne bii amut bu ko gën a kawe mu yàgg ko fee ñëw ngeen yàgg taxawu yéen ñëpp mànkoo loolu fu cant mën a yem mu ne su ko wax waye xolam sedd na lol ba ag ci fi nak da fay daara jo xamanteni bi ci mom yëmut ak fenn ndax da fay géej jo xamanteni bi fi la tànqee xam-xamam lépp lu mu xam fi la ko xamee looloo tim Cheikh murtada ci bopam tambalu win fi tanki yi ba bolé ko ak seigne Modou Khari serigne mohammedou Khari Bousso muy lo xamanteni bi jëfi ku tedd la jëfi sëriñ bi la ah lim fi fekk nak bu ñëwee ngeen diko ko teral loolu mi ngi koy sante bu baaxa baax di sante njabot gi di sante taaliba yu bu baaxa baax di ñaan yow ma sam nga yag fi lool te fanta am wër lool ta xamni dal wax dëgg yàlla li mu bëgg a wax lépp munu koo wax ci xolam ci ci munu koo wax ci làmmiñam waaye li ci xolam rëy na ba tax na daal fii moom yëmuloo kook fenn mu ngi leen di gërëm di leen sant yéen ngeen ñaanal ko sunu boroom guddul fanam mook njaboot gi ndax sax ñi mu àndal néew nañu te bu sañan dana and ak ñeneen ci njabot gi ndax am na ñu yene eh, bëgg ñu fekk ci bis bi ndax fay bis bo xamanteni bi amna lu ko leer ci ni lepp lu fay sàkku si bépp bi fi ñew lepp loo fi sàkku si sëñ Touba dana ko def wa ñu rafa ndort te nu xamni rek lu ñu yag def la ndax wax deug yalla def ngeen li ngeen man lepp ba cant gi daal wax dëgg yàlla mi ngi leen koy seeral ci kanamu sunu borom subhanahu wa taala xëy na kàddu yi nag dana gàttu lool ndax eh, dañoo wax ni afdalul karaam maa qalla wa dalla waaye wax dëgg yàlla xol bi sedd na te mi ngi leen di xamal ne lépp lu ngeen nekk guddeeg bëccëg mi ngi ci te yéen itim du nekk dara te boolewu leen ci ndax boole gi kat cheikh murtada moko defal kon dal gërëm na len mi ngi ñaan ci suñu borom mi dul jéxal dara gëna yok yokk yi guddal fan yi te lepp lu fi way di wutsi mu def ci lu kawé ndortam yoyu kaddu rek leen na nako ci sanni ci turam ah kon dal xamna ni rafa ndort ci nañ ndort ci nit ñi and ak mom ci ni dewen danañ fi ñëwaat ak itim yag leen fa fekk ay dewen dewen ci kàttanu yalla mu and ak wër gëram wa di gën di ko leer gi ak lepp ak itim lepp lu rafet rek ñu diko dox guddeeg ba cëkk alaykum wa rahmatullahi taala wa jere euh sëriñ mi neena nga def ñaan su ko defé ñaan ñu téwé ko na gën dewen té ku fi joggé suñu borom fajj sa aajo mo xam lu mëna doon loy sakku mo xam loy jambat suñu borom dindi jambat gi bu dee looy sàkku sunu borom faj aajo ji té ñu téwé ko negen déwén kon sëriñ bi man nga ñaan bismillah Wa bisimilah. sifai wa tawai أن لمرسل لنا وداء ومرسل الشفاء والدواء من أمر العباد بدعائه ليدعو عن النوايا ثم على من أشمس سامرت يبرى بلا وواجب الغرب محمد تجيب بنا ركيم أشكى سرى غير الكريم والآل وشال شر مرائي ما كان مثل شامل شوائي عشان يوم شو أوجاي مفتخرا أو نمجي بدعاي واشتكي من درر غم شيئة واني مقدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احضرنا بجاه خير من الاكرمين ثم بيوم رمضان العظيم يا الله يا رحمن يا رجل يا بر يا كريم يا عزيم اغفر ذنوبنا تقبل منا وامن إيمانا وتجاوز جنة وأنشر أطلابنا خير له مكان ما نخاف من شر نخم وهب لنا آداب والمشاعر وكفنا الآفات والمشاعر وهل لنا لزالت هذه وكفنا كشل الغادي يا من يا نجيب يا وادي يا من لو الله يجعل أنزل زلاك مكان داري ولا تهل بالله وأنزل نفى مكان وأنزل الخير مكان شرير وأنزل الحلم مكان وأنزل الجود مكان وأنزل الشفاء مكان الفقير وأنزل الهجر مكان الكبير واشد جميع المسلمين عاجلا ثم القوم قلوبا والذي وافي والتبي ولا تواخذ بكر شر فإنه وإن عشوك لخولة لم يدرك بك وإنهم أبان لا تقدرون على بوارك للدفن يشعرون قلوب ليس تميل أبدا إلى شواك وإلى قدر لكن ما تلسوا الجواري أخضاه لأقضاء الخبائر فلا تراقص بك وله أبي الذي لا ينفق فلا تراقص بما لا ينقص ولهم أبي الذي لا ينفق يا الله يا مقلب القلوب غلب قلوبنا عن العيوب وعينا بحب كل مسلمين ونجنا من شر كل مجرمين وجد جميع المسلمين الضراء لنا أخي لآمن فالضراء وجد جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات شمع فيهم قلاء وجد جميع المسلمين في البخار والمسلمات بقياد دعاء وجب جميع العلماء آمين وجب جميع الآمين والرشيد وجب جميع المولدين صايمين وجب جميع سائلين ماذين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون بداري غير عافية وابعوا ركبنا عن مسلمه ونجي كل مسلم ومسلمة وعوننا يا ربنا في الكتاب عند الممات وقد يوم الخيام بجاه قيد من شفى الأمراض ووعب المرحوم والأخراد محمد من الكمال انظر الأمراض والأسلام وشلي الغليش ثم شلي وآلي مع شعاب الكرماء مع على المسؤول بدعائي ووفي البريد بالششاي وللناس الأجر صار لا الأشوام خلق يا من يروم دفع كل داي فلا تعال من لقى شراي وادق عليه في المشاعر والشباب شمت من يعم وبلاد بإذن ربنا وجاه المشفى جل علي ربنا كما سما بإذن ربنا وجاه المشفى جل علي ربنا كما سما سبحان ربك من الشر عما يشركون على المرسلين والحمد لله رب العالمين